kon buñ ko defoon noonu rek euh, dana gën a yaatal njariñul njariñul xidma bi ba tey ci wàllu euh, xidma it ba tey ci anam yi rek ba ci wàllu xaalis bi sax fi ma ci xaalis laay wax ni euh, ñi xidma xaalis it mooy ñi ñi joxe xaalis itam liñ xam rek mooy jël sa xaalis jox ki nga koy jox sëñ bi waaye mënoon nañ cee dugalit anam yoo xam ne ba tey yaa ngi joxe xaalis waaye nag anam goo xam ne day day tax mu gën a sakkan mooy mënoon nañoo taxawal li ñu tuddee investissement mënoon nañ koy def lu mel ne jàngu bi sëñ Muntaxa di taxawal nga xam ne ci tabax tabax gi lañ toll waaye ku ne xam na ne tabax bi moo ci gën a tuuti li mu laaj li mu laaj ci xaalis moo ci gën a tuuti ndax ma buñ ko tabaxee mu sotti sotti na waaye la koy yor nag yor goo xam daa war a sax lool la mu laaj ci xaalis kenn xamul nu mu toll lu mel noonu nag euh, bàyyi ko rek ci joxe bi ni ñuy joxe nii rek euh, gënul lool wóorul lool itam gënul lool wóorul lool bàyyi ko ci kilifa gi rek nga xam ne li ko nit ñi jox moo koy joxe na ko cay def wóorul lool sëñ mu taxaa ko ne xam na fi ko xam-xam toll ku ne xam na ko ba mooy yitteem luñ ko mën a jox ci àddina lépp mën na ko caa dugal ndax jaral na ko waaw euh, kon wax ne ba àddinay tukki ñi fi jiite ñëpp noonu la ñu mel man naa am ko xam bu ñëwee moom du ko jaral loolu du ko jaral loolu balam laaj bam dox mën na ko bañ a def waaye buñ taxawaloon nag ay investissement yoo xam ne dañ naan lii moom jàngu bee ko moom jàngu bee ko moom mu doon investissement moo xam ab tool moo xam ab usine la moo xam immeuble bu ñuy bu ñuy bu ñuy luyee la lu mën doon luy génn xaalis lu sax loo xam ne moom jàngu bee ko moom loolu buñ ko taxawalee lu yàgg-yàgg ki jiite moo xam yitte woon a lii wala yitte woowu ko yoonam du nekk daanaka ci liy doxal jàngu bi misaal la rek ngir wane ne jàng bi day lu rëy rëy waaye lu àggut ci rëyaay boobu itam mën nañ caa def lu mel noonu daara yi di am ni daara daara yi di am nga xam ne ak buñ ci jàng bi nga xam ne def yépp ko bokk waaye daara yi nga xam ne sax euh, genn kër ñoo koy taxawal wala kenn nit sax ñoom it bu ñu amoon lu mel noonu dana bu gën a dana gën a mën a dana gën a mën a taawu dana gën a mën a taawu yenn liggéey liggéey yu bari li koy gën a mën a taawu moo ñu wutal ko fu xaalis bi jógee foo xam ne day sax moo ko moom am na ñu koy def Sénégal léeg-léeg ak ci yenn jàkka yi jàkka joo xam ne la ko wër jàkka jee ko moom dañ koy tabax daf koy bitig wala dara di ko luye jàkka jee ko moom lu fa jógee jàkka yu mel noonu du du mën nañu di di laajal jàkka ji buñ ba noppi di kii naan jàkka ji ay courant beeg ay nangam nag mën ko bañ a ndax jàkka ci boppam am na alali boppam joo xam ne moo koy yor te la ko jur la ko waral nag mooy investissement buñ def taxawal loo xam ne day génne xaalis tey wéy mu doon lu wéy la ñuy génne di mën a yor di mën a yor euh, mbir moomee kon loolu tam ñu dugal ko ci bi foog naa ne baax na ci di joxe ko am joxe ko am lu xaw a bari joxe lu xaw a bari bu la nga am wàññi ko nga joxe wàññiku waaye bu ñu amee nag loo xam ne moom dafa sax ci la xel ji gën a dale ci la xel ji gën a dale ci yenn liggéey yu mag yi rawatina lu mel ne jàngu bii nga xam ne bu sottee moom ba tàmbulee dox la koy yor du doon lu woyof moo tax dugal ci lu mel nii eh, lu am solo la waaye lu àggut ci dayo boobu itam moom dugal ci lu mel koy mën a jàppale lay doon loolu soppi la ci anamu anamu joxe ci anamu xidma ci anamu finance financement ni ñuy financé ni ñuy financé liggéey yi bañ a bàyyi rek kilifa gi di joxe boppam waaye ñu taxawal loo xam ne dañ koy moomale mbir ma du ci juddoo di yor mbir ma loolu moo gën dal xel te moo gën a dëppoog jamono itam jamono doxinu jamono la boo xam ne lu am njariñ la te buñ ko defee soppi wuñ luñ war a soppi soppi wuñ luñ war soppi ci geneen wàll muy wàllu tasaare wooteb sëñ bi loolu bokk na ci yittey murit gi yittey murit gi tasaare wooteb sëñ bi da cee bokk te loolu tam ci sax sax la bokk mooy waree su ko bàyyi dañ ko war di tasaare ndax sëñ bi ab wooteem dëgg la ñi mu dëkkal la ko teg ci seen loxo waaye jubluwut mu yem ci seen loxo jubluwutoon mu yem ci seen loxo ku indi dara nag da nga nekkal nga koy teg seen loxo waaye nag jubluwut mu yem ci seeni loxo àddina sëpp la ko yéene ndax njariñ la te àddina sëpp la bëgguñ njariñ kon bu ko tegee ci loxol ñi mu dëkkal it ñoom ñoo ko war a jéem àggale ci àddina sëpp loolu yitte la war a doon ci murit loolu nag day mel ne moom yitte la joo xam ne dëgg-dëgg dafa mel ne yitte woowuñ ko daal yitte la ñu jàppewul yitte te yitte nag la yoo xam ne da cee bokk da cee bokk kon foofu jaadu woon na kilifteef yi kilifteef yi taxawal kuréel boo xam ne loolu la yittewoo tasaare njàngaleem sëñ bi waaye fi mu ne li liy xew mooy kenn ku ne rek moo koy def ci coobareem kenn ku ne moo koy def ci coobareem rek waaye kilifteef gi moom amul ci taxawaay boo xam ne dañu xam ne yitteem la mu sàkk kuréel jox ko ay jumtukaay yoo xam ne moom lay jëfandikoo ngir tasaare wooteb sëñ bi loolu nag lu war am la moo xam tasaare ko ci biir réew mi la moo xam tasaare ko ci bitim réew loolu lu lu jara def la ndax loolu tam ci xidma bi la bokk tasaare woote sëñ bi ci xidma bi la bokk te ma ni ko waxee ci cëslaay yi la bokk mooy ci la bokk lu ñu war a def la ni ñu koy defe rek moo mën a soppi waaye jëmmi def gi moom warta warta ñàkk ni koy defee nag moo mën a sotti li may mujje mooy ci wàllu wàllu yor yi nu yoon wi ci boppam yor yi nu yoon wi yor yi nu yoon wi yoon wi genn kilifa la am bu yilif ñëpp muy xaj muy xaj genre de muy muy loo xam ne it Euh, lu bari lu murit gi am moo leen ko may mooy genn kilifteef googu ñu am nga xam ne bu nee nañ ñëpp ñëpp jógandoo lu bari luñ sottal loolu moo leen ko may kon mu doon lu ñu war a fonk lu ñu war a dëgëral lu ñu war a dëgëral na ci li koy dëgëral nag ñu tëral tëral yin wuy tax mu gën a dëgër tëralin woowu bokkoon na ci ñu sos ay kuréel yoo xam ne dañuy jàppale xalifa bi ndax li am itam mooy xalifa général de murid bu ñëw bu ñëwee nekkoon na fi démb doonu ko woon xëy xëy xëy doon ko bi mu ko doonee itam amut lenn lu soppiku ci ñi àndoon moom ci misaal ñee mu nekkaloon démb ba mu doonee la mu doonoon lu jiitu président de Mouride bi mu ko doonee tey ñoom rek la nekkal ñoom rek la nekkal amut ñenn ñu koy jàppale ñoo xam ne lim nekk président de Mouride moo tax ñu koy jàppale waaye ña ko doon jàppale démb ca mu doonoon rek ba tey ñoo nekk ci moom loolu nag xam nañu bokkuñ lim doonoon démb bokkut ak lim doon tey kon ñi doon ànd ak moom démb nekkoon ak moom démb. du na ñoom ñoo war a nekk ak moom tey ndax la la mu doon démb lim doon tey kon li doon yombal loolu nag mooy moom ay kuréel yu samp yoo xam ne dañu jàppale xalifa général de Mouride kuréel yooyu ñoom ku ñëw fekk leen ku ñëw fekk leen ci wàll yëpp wàllu gune am kuréel boo xam ne mooy dañ ko samp tànn nag ñu fay nekk tànn leen tànnin wu rafet tànnin wu rafet mooy ñu xool ci ñoom man-man xool ci ñoom itam ak njub ak njub xool ci ñoom man-man xool ci ñoom ak njub wàll kuréel bu ne wàll dañ ko dénk ñañ cee tànn doon ñu man loola doon ñu jub itam buñ defee loolu xalifa général bu ñëw fekk leen ñu di ko jàppale li ñu te continuité bii am te di ko wax ci état yi loolu moo ko maye état day am administration bu fi nekk boo xam ne ñoom dañoo li war a am li war a am mooy fañ féete day luñ xam luñ man waroon nañoo doon it nag ñu jub tey nag bu dee suñu réew yi bari duñ bàyyi xel wàll googu wàllu man-man bi la ñu gën a bàyyi xel léeg-léeg sax nañu dugal ci yeneen ba man-man bi sax duñ ko ci bàyyi xel waaye li cosaan moom mooy mu doon ñoo xam ne daal man-man moo leen teg fañ nekk ku mën di ñëw danga leen koy fekk ku dem itam bàyyi leen ñoom seenu nekk fi ajuwut ci ne jiw mii mooy njiit tey seenul nekk fa ak wut ci ne diw mii mooy njiit tey ci jiite tey da leen fekk bu demee da leen fi bàyyi loolu mooy tax continuité bi mën a waaye bu fekkee ku ñëw ñim nekkaloon rek lay àndal ñëw ñi fi nekkoon ñoom jeexal nañ continuité du am day mel ne ku ñëw day tàmbali li naan tàmbali à zéro te itam ñi nekkoon ak moom ndax lim soxla lépp man nañ ko lim soxla tey ndax tey du kim doonoon démb kim doonoon démb lam soxla woon mën naa am ñoom nekkaloon ñu man ko waaw kim doon tey nag soxlaam bokkut ak soxlaam soxla su kam doonoon démb ba tax na ñoom nekkaloon démb li ëpp ëpp sax nag duñ ko war a man ndax lu néew néew daa leen ëpp sax da leen di ëpp daa leen di ëpp duñ ko àttan buñ ci amoon man-man tam ak lu ko mën a àttan moom ndax bokkuñ ñaar ñi bokkuñ li ñu ñaan woon déet bokkut ak li ñu ñaan kon li ci baaxoon rek mooy am ay kuréel yoo xam ne moom dañ ciy nekk ci wàllu gune am kuréel boo xam ne mooy taxaw wàllu googu di jàppale xalif général de Mouride bu ko defee ku ñëw fekk ci kuréel boobu ñu ànd ak moom fekk na nag ñu bàyyi xel ci nañ leen di tànne ñu xool ci ñoom ak man xool ci ñoom itam ak njub loolu buñ ko dugalee buñ ko dugaloon ci yorinu yorinu murit gi mën naa doon ak coppi waaye coppi guñ sañ la coppi guñ sañ la ndax coppi bi ci jumtukaay la jëm ci ci ak anam la jëm waaye soppiwuñ niñ ko waxee wàllu kilifteef gi doon genn loolu kenn jëlewu ko fi kenn soppiwu ko waaye luy dëgëral loolu luy dëgëral loolu lay doon te mooy am na ko jàppale ñoo xam ne dañ leen di tànn te bañ a doon ñoo xam ne rek yàlla dogal ñu nekkoon ak yow li nga doone li nga doon tey itam ñu nekkaat ak yow sëñ Bachir daal yu mel noonu laa ne woon xëy na mën naa doon ay junj ci wane rek ne murit ji am na ci lool kenn waru ko xalaata soppi ndax ku ko soppi kon la muy nekk léegi leneen lay doon waaye am na ci loolu nag sañees na caa soppi léeg-léeg sax dañ naan warees na caa soppi warees na caa soppi waruñoo tënku rek ci yenn jumtukaay waruñoo tënku itam ci yenn anam ci yenn defiin waaye defiin ak anam ak jumtukaay lu ci ne bu jamono laajee ñu soppi ko def ko war a soppi maa ngi jégalu asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. maaleykum a baax ci am solo bi nga xamante ne bii def nga wax dëgg yàlla li taxoon mbooloo jox la bi xalaatee thème bi xalaat la ci taxoon ñu xalaat la ci ba jox la ko mën na mën naa wax ne amees na ci lu kawe njort xëy na lu bett sax ndax xam bi nga xam ne man nga lu mel nii moo tax bi laj na bi e, tàmmee bi ma ne saa wax ne xalaatum ci kenn yow loolu nag la taxoon ñu ñu tànn la ci wax dëgg yàlla matal nga ko bu baax a baax a baax a baax kon jërëjëf sëriñ Cheikh na ñoo lay sant bu baax a baax di la gën a ñaanal suñu borom gën laa dëgg gën laa taxaw ndax waxtaan bi leer na am na solo lool yaakaar naa ñi ko doon topp ci jataay bi ak ci jumtukaay yi ñoom it yaakaar naa ni yëg-yëg bi ñu ci am moom lañ ci am mooy am solo bu am solo muy tam boo xamante ni